mbër gàlle yaay mbër yaay mbër fooy fanaan mbër yaay mbër fooy fanaan kii mi ngi côté bii kii mi daal politicien yi ko bëgg a yàq boo ko bëggee dégg dëgg mooy réew mi politiciens yi ñoo ko bëgg a yàq te politique jaamu yàlla la te ñoom nag dañoo jàpp ne politique affaire banditisme la ak pexente la parce que seen biir sax da koy dégg si seen ay biir wax waa lii politique la rek wala lii politique la te politique du wax lu dul dëgg politique du fexelante politique jaamu yàlla la parce que ay nit yu jàng ba am xam-xam ñii def droit ñii di ay ingénieur ñii di leneen ak leneen ñëw demoo wuti sa liggéey bopp nga ne dama ñëw pour servir sama réew sama xam-xam dama ko bëgg a def sama réew loolu jaamu yàlla gënu koo kawe mais nag buñ ci raxee yëfu bandi yàq réew mi ci waxante yu ñaaw ci jéem pexelante dañuy dañuy day mel ni seen intention bi ñu amoon ci réew mi parce que ñoom ñëpp boo seetee politiciens yi ñoom ñoo yoreel bor Sénégal Sénégal amee lu leen bor parce que ñoom ñëpp tey seen affaire baax na te réew mi moo leen ko def kon tey loolu réew mi defal leen ko dañ ko war a tourner waat ci réew mi te bàyyi ci caaxaan yi ñu nekk parce que réew boo ko yoree wala nga bëgg ko da nga war a fexe ba nit ñi ko dëkkee seen xel di daal mais tey réew mi ñëpp ngi tiit di xaar ay événement wu yàqu ku nekk di xalaat ne réew mi dafa war a tàkk wala nangam te ni nga koy gisee da ngay tiit da xam ne c'est réalité parce que quand yëpp muy état muy opposition ñoom ñëpp ku si nekk yaa ngi tegante dënn te amuñu ku leen atte waaw boo seetee bu njëkk ba kilifa diine yi ñoo doon suñu yaakaar xam nga pour ñuy atte politiciens yi mais boo seetee sax ba ci biir diine ji sax da nga fay gis ñu mel ni ñu def deux parties ndax politiciens yi politiciens yi ñoo làqatu ci ginnaaw justice ba nit ñi respecté tuñu justice politiciens yi ñoo làqatu ci ginnaaw diine ji ba nit ñi léegi kilifa diine yi di dégg luñ daanu loon dégg xam nga te loolu jaaduwul quoi loolu jaaduwul dañu war a ku si nekk seen responsabilité xam nga ko nga dem nekk ci ñoom li leen war mooy ñu jéem a convaincre population bi ku si nekk te bàyyi histoire bàyyi xeex parce que Sénégal li ci gën a garaaw li gën a bon ci réew moo fi commencé am mooy foowee bakkenu doomu aadama bakkenu sénégalais seeratul bakkenu sénégalais presque moo bakkenu xaru France ñoo yem wala dara parce que nit ñi dañuy dee sans rien ay événement day am politique quatorze morts ah ay quatre cent quatre vingt personnes dee ci biir géej gi Sénégalais yi di dee si désert bi lépp ay jeunes te réaction zéro loolu nag gis nga boo ko commencé tàmmal benn jeunesse dañuy dem ba réew moom dañuy kon te Sénégal kon ñu woon Sénégal da nga doon dégg ci ay problème politique yi ay grève benn moor rek ñu jëloon ko réyal ko ay étudiant Balla Gaye da nga ko doon dégg ba ñu tuddee foofu couloir de la mort mu rëy benn bakken boobu rëy si sénégalais yi wala nga dégg benn étudiant ñu ne Fallou fay xaw ma xam nga nit ñi rëyal benn mort boobu mais Sénégal léegi day am quatorze morts sans suite mooy ñu ngi ñu ngi def ci jeunesse bi kon ñu ngi def jeunesse bi pour ñu violent pour ñu soxor te xam nga loolu baaxul ci réew loolu mën na yàq waxuma la léegi sax mais ba ci kanam kanam day yàq avenir u réew mi ci réew mi tàmm di gis lu bon te loolu du Sénégal te loolu yëpp nag politiciens yi rek ñoo fi bëgg indi ngir ay intérêt personnel ay quelques personnes te loolu baaxul loolu baaxul nañu fay naar bi xoromam mooy fay Sénégal li mu leen defal ñu bañ a teg ko ci ay calcul wala ay mbir ba di si lor ay nit fii ba deux mille vingt quatre benn nit waru fee dee fii ci réew mi ndax politique munuñu rek saayu ay événement ñëwee wala ay élection ñëw rek ay bakkenu baadoo la di dee loolu dañ ko war a bàyyi ñoom ñoo war a nite xam ne ni ñu fonkee ni fi ñu jaar seen ay njaboot ñoom baam ay doom bëgg leen di leen toppatoo ñii dee tamit noonu foofu la seen waajur yi jaarak ñoom ay nite leen jur waaw moo tax problème bi ne ci réew mi yëpp politiciens yi la te dañu war a delloo si seen xel xam na ñoom ñëpp am na ñu leen fi jiitu woon Senghor mu ngi ci biir suuf juge Kéba Mbaye ñoom ñëpp ay maître Babacar Seye ay ministre yu nekkoon fii ci réew mi ñu si bëri tey ñu ngi fi woon amoon ay ndomal tànk ci réew mi tey ñoom ñëpp ñu ngi si biir suuf ku ci nekkoon ci lu jaaduwul tey foo koy waxi jee te ñoom it dañ leen di rejoindre ji si biir suuf kon loolu nañ ko bàyyi xel nañu bàyyi xel te kilifa diine yi wax ak ñoom directement xam nga ba ñu arrière si li ñu nekk parce que li ñuy fi ñu bëgg yóbbu réew mi nii réew mi amul foofu place boo seetee sous région bi yëpp dëkk yi ñu wër yëpp ay état militaire ñoo fa nekk dëkk bi lu ne ngay dégg ci àdduna bi léegi ay terroriste ay dara te ñooñu xaaruñu lu dul réew mu jaxasoo ba ñu ñëw dugg fa am pa place te sunu Sénégal bi yooyu xaju fi ay ruq fi nekk boo duggee banlieue bi ak ay nit ñi dañuy lijjanti seen dépense yi jour à jour am na ñoo xam dañuy yeewu ci jour bi la ñuy génn taqali ji pour jox seen njaboot kon réew mi talu ñu histoire ñoom ñi nga xamante ne nag réew mi teral na leen ñoom ñëpp di ay millionnaire ak ay milliardaire nañ ñu dimbali si histoire nañu dimbali quoi. lan. gis waaw werante werante bu yàq der mais loolu loolu moom loolu moom ku mu neex rek gis nga man amila saalihan fal nafsi dafa am yàlla fu muy jeexalee ay waxam ma ay man amila saalihan fal nafsi kullu nafsin daa'iqatil mawt fadarum yaxuudu wa yalaabu xataa yulaaqu yowmahum alladina yuaadun def leen lu leen neex mais yàgg-yàgg dinaa leen jàpp xam nga yàlla bu demee bay teg menace yooyu mooy ku si nekk defal lu la neex mais tôt ou tard ñun ñëpp dinañ rendre compte moo tax lu waaye di def rek na nga sóoraale pour ëllëg parce que ba yàlla ne man amila saalihan fali boppam lu waaye def rek sa bopp nga ko def loolu jeexal na wax kon kenn yàqul kenn ku ne sa bopp nga yàq te balaa nga koy xam nag mooy ñu dem ba jàkkaarloog ci kanamu yàlla parce que ki ngay yàq deram buñ demee ba ci kanamu yàlla yow da ngay ñaan naan ay waay bu ma sañoon bu ma sañoon dinaa wax ne dinaa bàyyi ñu yàq sama der parce que képp ku yàq sa der di nga jël si moom ay xéewal jox ko sa bopp moo tax ñi ñuy yàq seen der rek di leen toroxal ci àdduna ñooñu ñoo ëpp avantage ci kanamu yàlla wala man de bu ma sañoon moom chaque jour nit ñi di yàq sama der parce que fële ñu jëm nga xamante ne mooy dëgg foofu dara du fa doy. Mhm. moo tax daal ñu ngi ñaan Sénégal jàmm xew fi di ñaan politiciens yi seen xel dellu si nañu bàyyi enante bi ñoom seen biir ku ciy wax dangay ngay ne dañoo merante. te loolu yëpp seytaane moo koy def seytaane mooy dugg sa xel di la jax-jaxal kii day dof-doflu wan ko yaa ko gën a dof kii tamit nangam nangam parce que Serigne Cheikh waxoon na ko ne libi mu ngi toj jinne yi tojoon libi dinañ dugg Mali te fii lañ jëm si dafa mel ni jinne yi nag ñoo faranku laa ci xelu politiciens yi bëgg taal suñu dëkk bi mais nañ ñu may jàmm amoon mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ah. kon nee naa leen à chaque fois bu ñu jàkkaarloo ak moom suñu xol day sedd parce que lépp lu mu wax loo xamante ni ñun dañ ciy jariñu xoolaat suñu bopp di ko jaajëfalaat nag bu baax a baax ndax jot amul mais tey mu wax dëgg yàlla dama ko dama ko dama koo xoj wax dëgg yàlla dafa xawoon dafa tawatoon sax gars yi xamee ko noon mais maa ko génne di ko ñaana yàlla nag bu baax a baax a baax ah yàlla may ko combat ndax tamit dafa jot te nit ku baax la nit koo xamante ni àdduna ñëpp ñoo koy dégg loolu tax à fois dama koy sonal nag daa ma maa sonal mais ñu koy jaajëfalaat ndax moom suma partenaire la te nekkul ni tey la quoi waaw di ko jaajëfalaat bu baax a baax mais nag parfois day ceenc <laughs> yow yow moom yaay lakk la rek yow moom lu nit làqatu làqatu di nga ko wëri mais sant yàlla yooyu sa liggéey ñu ngi ñaan yàlla rek fépp foo ci bëgg yegg nga yegg ko di nuyu lu làmp yëpp di nuyu suma famille waaw suma fami yëpp di leen nuyu di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ñaanal suma gaay yi nga xamante ne ñoo bokk écrit ñu am ay combat yëpp yàlla defal leen ci jàmm xam nga di nuyu daal képp koo xamante ne rek dangay bëggee Gris 2 rawatina ñi nga xamante ne dañ ñuy jàppale te làmb moom mbër bu toogee gëj a bëre rek am na ay nit yoo xamante ne dañ dañ lay dañ lay bàyyi xel toujours te ñoom it ñooy tax toujours ngay am confiance wu làmb ba léegi su si mel ni ay Saliou Fall Pape Abdou bu Lagrosse xam nga ku ci mel ni per père Ismaïla Mbengue nga xamante ne moom moom père Ismaïla moom amuñu amuñu fayam quoi waaw père Ismaïla moom dañuy bokk ci nit ñi nga xamante ne dañ lay dañ lay bàyyi xel ba da lay jox courage pour ngay jàpp ci làmb ba léegi xam nga ku mel ni grand Modou Ndione grand Ibrahima Ndiaye cité ensemble xam nga ak ñëpp daal ku ku lim rek da ngay juum waaw ay Cheikh daabo moo nam yi kooku moom suma xarit la mu nag moom benn lañu xam nga daabo Dabo transfert ak gaa yëpp ñi nga xamante ne dañ ñuy taxaw yëpp ñu ngi leen di sant di leen nuyu bu baax a baax. kontaan naa ci. waaw man tamit maa la raw yow borom baax nga. mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay